politiser mais normalement Macky bi bu mu toogee dafa ne damay def conseil présidentiel décentralisé dans toutes les régions donc ça c'est l'option étatique waaw même su dee day dem dans trois mois pendant le le le le règne de Macky Sall c'est une option de l'État mhm. donc moom euh, je pense que nañu sóoraale que lu muy def ni dina ko dugal ci bilan am avant muy dem c'est-à-dire ku nar nekk président de la république su ñëwee le premier jour on lui fait l'état mhm. l'état de la situation mhm. Mhm. maintenant moom xam na ne amatul benn autorité pour décaisser mille milliards non il a donné un engagement de l'état maintenant comme euh, professeur l'a dit ku ko nar remplace mais mën na ne waa Kaolack xëy na du ngeen am mille milliards wala di ngeen am lu ëpp milliards c'est le chef de l'état prochain qui va décider mais en tout cas l'option, elle est une option d'État, tant qu'il n'y a pas un nouveau qui contredit ça. loolu mooy état aussi mm-hmm. ah. dans la continuité c'est pas seulement pour Amadou Ba. Mm-hmm. Mm-hmm. même si c'est un radical contre Macky la continuité de l'État. ya y a des options officielles de l'État. maintenant président am na sañ-sañ ne damay continuer li am na sañ-sañ ne man àndumtuma ci ak lii. loolu aussi quand même il faut ñu respecter. bon loolu mooy état de droit c'est-à-dire mm-hmm. l'état c'est le premier à se soumettre au droit mm-hmm. Mm-hmm. je crois maintenant bu dugg ci affaire politique les politiciens ils sont comme ça ah, ah, ah, ah. non c'est-à-dire xam na xam na ne du dem seeti sax mille milliards <laughs> moom xam na ko parce que dans trois mois il va partir.